embouteillage bu bari bu ñu nemmeekoo jamono ji sooxal na lool dem bi ak dikk bi askan bi fare padduwa di àddu ci ni ñu dundee li ni mel. waaw xanaa di métti bu baax rek nag ni ñu koy dundee moom métti na lool macha allah métti na lool képp kuy chauffeur moom. embouteillage moom dalee sonnal méttiwul kese ci transporteur yi ñii di clients yi tamit ñu ngi ciy daj lu nekk. waaw embouteillage yi au niveau Dakar métti na lool parce que man mii wax nga am na oto mais gis nga dama ko mujj bàyyi. pour euh, gën a euh, mën a euh, yegg gaaw yegg fu mu jëm. ñu ngi dikkaat ci li waral li ni mel. lu ko waral mooy bokk na si autopont yi gars yi defar. xam nga am na auto autopont yi nga xam ne pour sortie bi la moindre des choses ñu def ko deux voies kuy gën ñaari oto bu ñu teglantee gën ñeneen ñi mën a yëg mais auto autopont boo xam ne par benn oto mooy dugg léegi kenn bu ñëwee sàcc benn séeréer bu jóge fee jadd nar a dugg bloqué ñu war a jubal. mu nekk li leen indil ay gàllankoor yu bëri rawatina ci wàllum koom. impact bu bëri bu bëri bu bari parce que yow loo xam ne yow même pas loo xam ne même pas une heure de temps mun nga dem dikkaat nga xam ne taf-taf bu client yi ñëwaat. xam nga nga def ay presque ay quatre heures de temps impact bu bëri lay am quoi. Souleymane Ngom di imam moom ñuy xamal jafe-jafe yi nga xamante ni embouteillage bi amal na ko ci wàllum liggéeyam. je dois aller à la dem jiite ji léeg ma am ma am retardement wala ma war a defi mariage xaw am retardement comme hier j'ai failli tardé si mariage bu ma doon def au Mamel te maa ngi jóge ba Bargny ñi donc yooyu itam bokk na ci kay causé léeg-léeg da ngay tardé liggéey. maa ngi nii waroon naa yegg fi ma jëm euh, depuis dix heures mais embouteillage yi moo tax j'ai depuis presque euh, neuf heures au plus gis nga ñu ngi ni di traîner ba léegi. askan bi yeewoo pat d'Oie mu ngi ñaax nguur gi mu gën a yeesal sanction yi ngir wàññi indiscipline bi ñu nemmeekoo ci kaw tali bi gën a itamit yaatal yoon wi ngir rek la lii di dem bi ak dikk bi.